ëti xibaar bu wóor gaaw ñu saytu ko ba mu leer jëm si wàllub yoonu murit ak lépp luy actualité yi rawat na lu jëm si njabootu sëriñ Daaru Asan Njaay gaaw gaaw ngeen abonné si Daaru Njaay TV mooy seen chaîne de référence di leen di indil ay xibaar yu yi ngeen itteewu Daaru Njaay TV di leen toppal lépp luy information heures sur 24 gaaw leen bés cloche bi su ko defee ngeen doon membre di am lépp saa su fii si Daaru Njaay TV bul yam ci jàngile yow del woote jëm ci itte ca moomaat la ko naa daana woote bi bir keroog la ñenn ña dem ngir réere lam woote am gaayu nangu ca teel jaay seen site internet bi di Darou Ndiaye TV tey nag ñoo ngi fii ci màggaluk soxna Faty Dia Mbacké soxna Faty Dia Mbacké mi nga xamante ne kenn la woon ci soxna Serigne Darou Hassane mi nga xamante ne si ne Serigne Touba radiyallahu anhu moo ko ko dénkoon loolu nag bokkoon ci ay mayam yoo xamante ni si ne sunu borom moo ko ko jagleeloon ku ne xam na ne bis bu bis bi teeroo waa kër Serigne Darou Assane kenn ëppale lewu leen ci ba tax na ñu ciy taxaw taxawaay bu am solo ba tax na ñi di waa comité d'organisation bi nga xamante ni njiital seen Cheikh Absa Ndiaye taxaw ca taxaw bu am solo tey jii nag ñu taxaw ak ñenn ci jëwriñ yooye ñu nekk ci waañ bi nga xamante ni si ne foofu la ñuy dalale kilifa yi taxaw ak kenn ci jëwriñ yi Serigne Mbacke Ndiaye ak euh, euh, sunu benn jëwriñ euh, Serigne Modou Seye ginnaaw bi nga xamante ne nuyu nañ leen siyaare leen Serigne bi ginnaaw loolu naka ngeen préparé bis bi ba yegsi fii tey. jërëjëf sëriñ Fallou ñu ngi lay ziyaarewaat bu baax di la ndokkeel di la ñaanal jàmm waaye di ñaanal mboolem njaboot ko Serigne Darou Assane di commission communication ñu ngi leen di ziyaarewaat bu baax bu Dër Ndiaye TV waa ko Serigne Darou Assane si liggéey bu am solo bi nga xam nu ngi koy liggéey ci njaboot ko Serigne Darou lépp loo xam ne day jàllale. information njabootu ko sëriñ Daaru Asan Njaay gi ñëpp kon ñi ngi fii ci màggaluk soxna Faati Dia Mbàkke bintu Xaadim Rasuul mi nga xam ne ne mooy taawub sëriñ Touba ñu jëloon ko joxoon ko sëriñ Daaru moom la ñuy màggalam na tey jii di yëkk ci cadre commission de organisation bu jamaat Ahibaa Ousseyn Assane si njiite sëriñ Cheikh Mane Assane mi nga xam ne moo ko jiite ak mboolem njabootu ko sëriñ Daaru Asan Njaay gi ñëpp ngi taxaw fii si bërëb boo xam ne ne mooy mbana yi nga xam ne gis ngeen ko nii ñu tiim ko muy mbana yoo xam ne ne mooy jëm ci kilifa yi comme laaj bu am solo boobu ndax ñëpp a xam ne ne Daaru Njaay ak njabootam nu mu toll ak màggal gi lépp moo ko war a taxaw ndax mën nañoo wax ne ñetti waañ dañ boole yor ko fii ci màggalu soxna Fàjja gi ndax sëriñ Baaraga njabootu ka sëriñ Daaru Wasa Njaay ña nga fa ka sëriñ Mamoor mi nga xam ne mooy xalifa soxna Fàjja bi tamit njabootu ka sëriñ Daaru Wasa Njaay ña nga fa ak fii ñu nekk nii mooy waañu gi nga xam ne mooy waañu kilifa yi niñ ko programme nag du dara lurut lépp teg nañ ko ci ay waxtaan ak lu jëm ci bis bi ak lu koy jagal ndax ginnaaw bi ñu jotee ndigal li ci sëriñ Abdou Khadam yi nga xam ne bu jiite njaboot gi wàcc sëriñ Ibrahima jëm waaye wàcc tamit sëriñ Xaarim Dia imaam yi nga xam ne moo jiite section Touba ginnaaw bi ñu jotee ndigal tamit ñëw nañ fi ñu wax ñu nan nan lañ ko bëggee ci ab taxawaay ñu ànd ak ñoom ci liggéey boobu waaye ñun tamit li nga xam ne mooy suñu liggéey ak ni ñu koy liggéey tamit wax nañ leen ko ñu fekk suñu kon mën nañoo wax ne liggéey bi njaboot ko sëriñ Darou Ndiaye ñoo ko yor fii nag mën ñoo wax ne ñu fi taal bëriwut bëri na bëriwut waaye tamit teewut si xam-xamu commission d'organisation ak seen taxawaay ndax bëgg lépp jàkk waaye bëgg lépp tamit mu mucc waaye bëgg lépp tamit si ak set ak sell tax na leen lu nañu teg ku ci ay programme programme yi kenn ku ne daa am yóbbu waaye lii waañ wi nga xam ne mooy waañ kilifa yi dañoo tënk ci ay lu toll si dix personnes rek ngir ñu ñëw taxaw waañ woowu kon fii lu fi nekk bëriwut waaye tamit ñu fi nekk tamit seen positif ak seen pas ak seen xarale tax na gëm nañ ne ni ñu ko bëggee mën nañ ko defee noonu ndax ku xool waa ñuy ni mu fi nekk mbooloo mi bëriwul kon loolu dara ko lu mooy ci ci organisation rek la laaj kon daal li ñuy wax daal mooy fi ñu toll nii si wàllum tey lañ toll bëgg nañ daal incha allah rabi waañu yi nga xam ne moom la ñu lëkkaleel muy waañu mag yi bala ñoo pare bëgg nañ lépp loo xam ne aju na si bis bii rek aju na ci waañu rek danañ ko def balaa ñoo ñu pare loolu nag dara ko lu mooy ñoom xam na ne ña ngay tey ñun tamit ñi ngi tey ñoom bala ñoo yàq tamit dañuy déggoo ak ñoom bu ñu seddale tamit dañuy déggoo ak ñoom bu jug jotee tamit ñoo koy ànd ak ñoom kon loolu mooy wane ne liggéey bi ci commission organisation ci wàllum liggéey bi fi mu toll mooy lépp ci wàllum tënk la toll waaye lépp ci wàllu communication la toll ndax ab liggéey mënut a ñàkk communication nakat bunt bu ne da am ñu fa nekk kon faaw ñu communication mooy tax liggéey bi ni ñu ko bëggee ñu mën ko amee noonu waaye bu kenn ku ne jëmee fenn rek mooy war a liggéey bi surux surux di ci am waaye bañ liggéey bi am surux surux tax na kenn ku ne am foo nekk waaye tamit boole ko jëriñ ju ne ñu fu ñu su ko defee kenn ku ne am nekk ngir liggéey bi ñu ko bëggee ñu mën ko amee moo tax kenn ko ne fa nga toll da ngay woo na maa ngi ci nangam maa ngi toll ci ñuluk wala maa ngi toll ci sóor su ko defee ñooy bokkandoo yàkkandoo heure bi bokkandoo jugandoo ko ba ñu ci bëgg ñu mën ko amee noonu kon foofu daal lañ tollagoon incha allah. jërëjëf mbokk yi kon ngeen déggee ko noonu ni nga xam ne noonu la ko Serigne Mbacke Ndiaye waxee ni nga xam ne noonu la jamaatu Ahibahi Sy Al Hassane taxawee ci bis bii di bisu soxna Faty Mbacke di taaw ko euh, am solo kon bu ko defee ngeen bokk ñu suivre seen site ñu ñu saytu ko ba mu leer jëm si wàllub yoonu murit ak lépp luy actualité yi rawat na lu jëm si njabootu sëriñ Daaru Asan Njaay gaaw leen gaaw ngeen abonné si Daaru Njaay TV mooy seen chaîne de référence di leen di indil ay xibaar yu gën yi ngeen itteewu Daaru Njaay TV di leen toppal lépp luy information 24 sur 24 gaaw abonné bés cloche bi su ko defee ngeen doon membre di am lépp saa nekk fii si